asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna bon soo leen gisee li waral sama vidéo bi lenn kese la mooy vidéo bi nga xamante ni yéen a si gis image yu Imane euh, mu doon li nga xam ne lu ñàkk a teggine la mu doon vidéo bi nga xam ne man maa ngi koy ñaawlu man mi mu doon sama vidéo mu doon li nga xamante ni nii rafetluwuma ko bon juste tooguma fii nii pour teggi tuuma tooguma fii pour jox kii que ça des explications dama ñëw fii pour jox ki nga xamante ni nii fan si imaan la tey bu demoon bay toog ñuy wax si imaan lu bon mu am source yu mu ko défendre am fu baax fu wóor fu mu taxaw ne lii ak lii moo tax parce que nit kat boo koy défendre war naa am loo koy défendre moo tax tey may taxaw fii di leen ne video bi am na ñoo xam ne gisuñu ko sax parce que ki ko publier sax kontam mooy loolu kontam kiiwul kenn xamu ko mais man si boppam may taxaw won leen foto yi ngeen gis ko ngeen xam ne bokk man garaawaluma ko mais du lu rafet pour du pour TikTok parce que ki ko publier peut-être xelam moo toll noonu waaw sama xarit la elle s'appelle Jeeba jigéen la comme man looloo tax vidéo bi gën a ñaaw parce que dafa dafa tàmb di ma wax mon amour ma koy wax moo amour sama xarit la man xam naa copain am moom aussi xam na sama copain man mën naa ni presque chaque guddi man ak copain am dañuy toog amaan na tey jii nii ñi xamul ñooy jugé man Iman dama am famille man Iman dama am mbokk man Iman dama am ñu ma bëgg ñooñu moo tax tey taxaw may def vidéo bi mais sinon ñu ma bañ kese aw ma seen temps parce que man j'ai d'autres chats à fouetter dinaa leen woon photo yi nag pour ngeen xam ni may wax pour mu leer seen bopp am na ñoo xam ne ñu ngi naan Iman lesbienne la bu fekkee jigéen bu ñu biisu si ay lèvres lesbienne nga ngeen baal ma ci kàddu yi mais kon 99 virgule 99 pour cent fii ci Sénégal ay lesbiennes lañ parce que amul jigéen bu jigéen mu sa bisu si lèvre amul su amee wax leen ko su amee wax leen ko xanaa ñun suñu yaay duñ ay jigéen kan moo juddu te sa yaay bisu la si lèvre kan moo nekk mag te bisu wuñ la loolu sa amul chose bi nga xam ne lu extraordinaire la ba nit ñi ku nekk di wax mais dafa rafetul ci fuñ ko publier man rafet lu rafetluwuma ko man man nag dama am ay mbokk am famille am ñu bëgg moo tax may taxaw fii di am lu may expliquer wala may joxe explication di leen baalu àq bu baax a baax a baax di leen wax ne du lu rafet du lu jaar vidéo yu mel noonu du pour TikTok mais ku nekk ak sa xel ku nekk ak sa maturité fu mu toll ngeen dégloo ma xel bañ ma dégloo xol am na ñoo xam ne tey lu nekk dinaa ko dégg ci commentaire Imane dafa soof Imane lii man jërëjëf mais ñi ma bëgg moo tax may wax sama famille moo tax may wax imaginez sama yaay gis vidéo bi moom moo tax may wax te dina ko gis xam naa incha allah ngeen baal ma àq bu baax baax ndax man du lu may